comme suñu maam niñ ko nekkee boo xolé Sénégal dafa baxo sax di am ay femme leader donc bu ko defee femme bobu nga xamné dina bénéficier ci formation bi dañ koy joxat résilience joxat ko confiance en elle joxat ko positivité wan ko né challenge day am ci àddina deug la metti na tay waye bu metté tay suba dina neex donc mom bu paré femme bu nekk am nga communauté bu top ci ginaaw même bu dé sa wa kër kessé mom dina mëna andi limu jang jàng impacté communauté am impacté environnement ndax ñun ñëpp ñu mëna a génn lii ci jàmm jigéen loolu ma phrase fétiche dama naan jigéen dafa nek naturellement leader Légui formation yi li ñu leen di jox ak capacitation yi pour rek di gëna yé li nelaw ci ñom. donc Jigen tay buñ ko joxé na ah yow kat leader nga té li am solo ci ci formation bi moy dafa orienté ci zone yi gëna sama mbokk yi nek ci all bi ndax bo gisee leadership tamit neex na nga wax ko wayé bu jafawé day metti loolu leadership bi génn donc tey jii femme hein, dans sa globalité dans son entièreté moom la ñu mën a sensibiliser ne vaccin fi mu ne nii balaa nga naan naam ne fa boo feebaree doo nekkati leader ndax doo ko tal donc pour nga mën impacter sa société ak sa communauté da ngay faju ba pare te li lay faj Sénégal xeex na ba andil ñu ay vaccin donc femme boobu dañ koy sensibiliser ne ko leadership aussi da nga ko war exercer si sa communauté wax leen nañu vacciné wu mais sax vaccin bi balaa vaccin bi geste barrière yi euh, li nga wax am na solo c'est-à-dire que euh, da koy sensibiliser ne ko di nga vacciné wu soo mënee mais bu amulee vaccin aussi da ngay protégé wu ndax li ñu war a retenir mooy euh, leadership jàngoro bi bu la dalee dootoo ko talati ah te comme nee nañ léegi ñu génn ci crise bi bu soobee yàlla femme yëpp dañoo war a ñëw avec une santé de faire, seen communauté une santé de faire pour mën a songuwaat économie bi nga xamante ne crise bi affaiblir na ko